ne e, photo bii alan ah, Sénégal la mooy bi ma daana mbéy géy daan daan yi ma daan bëri nañu ma e, moom bu lay jox nattu ma nga xam ne yàlla li mu def moo gën ci moom yàlla bu la tegee nattu nga xam ne rek moo gën loolu yéen a ngi sant yàlla dégg naa leen ci làmb ngi leen di suivre ci rajo Sénégal waaw maa di suivre bu baax a baax a baax. maanaam juróom-ñaari drapeau man maa ko yore drapeau arène Gabar Ndoye maa ko yore Siba maa ko yore drapeau arène Jàmbaar maa ko yore drapeau arène Bécaye 3 maa ko yoo xam ne kenn jëlu ko ci man donc bu ñu ma négligé nekk entraîneur international. lu nekk def naa ko ci làmb lu nekk xeex naa ko ci làmb maa ngi leen di gërëm bu baax leen sant leen ñaanal parce que dara jombul jàmm man bi ma jógee ci làmb làmb neexaloon naa ko làmb dama ko neexaloon dem naa Nouakchott dem naa Nouadhibou dem naa Zouéra dem naa Fogo dem naa Forkowànke dem naa def naa def naa France def naa Italie def naa Allemagne def naa réussite def naa ko nekk yëpp yow li feewoon ko mën a parce que loolu nekk lu nekk def naa ko ci làmb nekk entraîneur national international amuñu suñu cosaan suñu cosaan buñ ko yàqee sunu bopp lañu yàq waaye làmb ji léegi neexatul xamuñu ko ñu xam kii soo ko ñoom mais xamuñu koy dem xale yi fi ne mën nañu bëri waaye mën nañu xeex mën nañu bëri waaye mën nañu bëri parce que làmb du bëri làmb làmb du xeex bëri la hmm. daan naa mbay gay hmm. daan naa daan naa mbay gay hmm. daan naa maam góor gi njaay daan naa Samba Jaw daan naa ma njaay daan naa man li ma daan kenn nu mu toll loolu kenn xamul nu mu toll waaye nag yàlla muy te yàlla muy def lu ko neex day def neex rek day def neex rek waaye yéen ñoo fàttaliku te làmb wuñ ma maa ngi leen di gërëm di sant di leen xamal ne fi ngeen jëm yéen ko xam yéen ko yàlla jox